muy euh, appel bi amoon barki demb euh, fii de euh, ci seen ci ci yoof mu am ay coow fi am nag parce que am na ñu nga xamante ni dañoo woote li nga xamante ni moom moo di folklore te ñu bëri ñaawlu ko te xam ni communauté layeen bi baaxoo ñu ak yu ni mel ay sabar ak xii nag yu ni mel. ñu baal ma de parce que papa Serigne boobu mii dëkkoon fii si Wakaam doo doon xaritu Serigne Babacar Sy. di taaluba cheikh xam yàlla ba mu doy ñu koy jiiñe wàliyu ñu xëy toog ba ci mujj àddunaam wakaam gépp yoof gépp ngor gépp xam ne kii mën na nekk wàliyu parce que mooy sëtëb tafsir njaga géy fii si yoof jàngaa kii ndi woon waaye dem ne ba nekk ilimaandirate bi dëkk bi def na fi lu ne si mbaax daf ma wax ne sa këram mu ne Yuusu ma waaw mu ne ma yàlla bu la namulee bu la bëggulee fay bu la liggéeyloo ñii di def safaan wow yàllaa leen bëggula fal fay bokkuñu si si si si feet gi xam nga lu ñu la wax ne limaamu laay suma maam de seel ko dundoy dama siy tiituru ba doyal parce que ko dundoo yi moo réglé bagage yi xam nga jigéen dañ lay wax ne ne ma yaa wër na ngeen déggoo ne yàlla boole seeni affaire moo tax ku góor góor Sénégal ma leen di digal foofu nañu jàpp suñuy soxna nañu téye soxna yi soxna yi xam nga maam li maamu laay uti naa kooku ima abi kii nak résultat sax imaam Lamine Sarr Sall yii boo ma doon def loolu kaw soo mbokkam tukulóor la mais dafa am façon boo xamante ne seulement nag waxoon naa ko sunu benn directeur dans les temps si benn euh, jotaay bu ñu doon jéem a euh, commission bu ñu nekkoon SDE waxoon naa ko directeur mu on est euh, mille mille deux cent yi quelque kii employés woo ne ma ne ay sàcc fi doom mënoo jur juróomi doom te xamuloo mënoo waat ne ñépp dañu jub déedéet mais ba nga gisee folklore boobu seetaan yenn vidéo yi lan la la def dama jàppale rek ñi bokkuñu dañ war a taxan bàkkaar xamuloo safara ci yàlla di wax man defe naa ne léeg ma gis sax ay sabar ma ne waaw jombul sabar yi pour ñu entraîner la pour mën a dugg àjjana duggin bu neex est-ce que duñ ko duñu duggandoo boo boo seetee ba korogee di nga bari ñoo xam bu ñu fekkee dina bari ñu dëgg seeni tànk mais ñoom ñiy def loolu xalaat nañ seen bopp nga am benn bés boo xamante ne dañu yeew sa ñaari baaraam yi daal di ko yeew a yeew ba mu dëgër gaa yi yëkkati la doo fi onke doo fi waxe doo fi respirer doo fi defee dara gas benn gan ba gas ba mu rafet au lieu que ñu koy seetaan ñu la dugal si biir gisuloo xam ne boo ne woo ngan di woo yooyu ngay dóor mais du génn seetal ma loolu ñu ne booy génn rek malaaka mi ka mujjee sa armée buy teg tànkam si biir rek malaaka bi ne pël questionné euh, euh, commencé la questionné xelaat nañ loolu loolu dañ ko war a xelaat beneen wax bi mooy xumandoo nañ ko yóbbu sa discothèque ba coow nañ ko yóbbu feneen mais lii nga xamante ne moo jëm si jaamu yàlla dafa war a dafa war set dafa war a mel ni nga war a mel su ngeen seetloo jigéen ñooñu di def loolu ñooy bandi réew mi ah. ay bandi la <laughs> non c'est sérieux ay bay c'est sérieux gis loo tax barka rasulullah gis nga ñooñu jaraaf nga ni ay bandi lañu danu silwise wul xam nga nit kanamu nit du dara kanamu nit mën na leer ko mën na kii surtout yéen nag jigéen ñi am na si jigéen ñoo xamante ne ba léegi comprendre ñu ne mat bii dañ koy puudaroo ñëw taxaw ne cooc mais bu ñu jëfee rek. jaraaf yow da ngaa branché sax nga ni ay mat yow da xam fu mu ne nii marque kii euh, yi ñu war a maquillé woo ak yooyu make-up yeeg yooyu. may may gis may gis ñu koy bind si kaw mais noom loolu dañ ko defa foog nga rafet rek mais waxuñu la nga rafet yokk ndox xam nga yokk ndox mooy def wax loo warul wax lu tax ñuy wax li ñu war a wax réew mi mag ñi fi nekkoon gis nga ni ñu daan doxale fajar ñu jog bu ñu jógee fajar bu ñu laa tegaat seen tànk seen nopp si suuf mooy bu ñuy tëdd. d'accord mais jaraaf nag li ñu cawaloon ci waxtu jeex na tàkk donte ni waxtaan gi neex na waaye fi mu bëgg nga daaneel rek mooy euh, façon bi ngay soloo ak jaaj yi ngay takk euh, ñu bëri nag bëggoon xam ndax jaraaf fi muy toog day toogaale ak ay jinne ndax gàllaaj yu muy takk ak ndax nii nii ni nga toogee nii euh, maam rabbu Dakar bi. waa ndax mu ngi toog fii ci jotaay gi peut-être nag c'est un peu banal pour ñenn ñi waaye dañ ma ko santoon ba may ñëw b ma laaj la ko. waaw xam nga jaraafi Kabeer gis naa sax benn lëbu bu kon bu dof bu dëkk Dakar Dakar dëkk bi xam fu mu dëkk si mais xam naa ne supporters yi grand sëriñ la may wax foofu ne ñoom grand sëriñ yi ñoom ñëpp suñuy mbokk lañ waaye ma fàttali waa Sénégal tamit ne grand sëriñ mbokkam jaraaf Youssou Ndoye lañ sama yaay ak seen maam ñii fi nekk ni ñaar ñii ñaar ñii fi toog dama waxoon ne gañeew ñu te waxoon naa ko seeni euh, ba ñuy def seeni feet xamal leen ne seen maam moo gañe parce que maam Mariam Diop ma moom moo moom moo moom moo moom mooy seen maam ñoom ñëpp moo jur Basirou Diagne moo jur euh, euh, kële naka mu sax naka mu tudd si Dour Diop Moussé moo gàllaaj gi xam nga waxoon naa la organigramme bi mais àgg woon si grand sëriñ yi ñëw ma si Farba ba mun nañ ko jox tey fi ñu toll nii ministre de la culture parce que jamono moom moo doon diggante ëllëg yeeg yooyu pour que dëkk bi bu ñu recensé jeunes yii toll si bay moom nañ koy jox mu dem si mbaar mbaari mbaar yi tëgg ko mais lii nga xamante ne moo jëm si si si si grand euh, grand jaraaf de la région du cap taabal ji ba tiim day xam na si dara fauteuil yi nekk fa woon yeneen a fi nekkoon boor bii laa toogoon kan yónni woon boor bi la toog nit nag man wax naa ni bay woo ñun ñëpp ñu xam ni yàlla mooy seet li ko neex mu def ko ki ko neex xam nga man fu ma doxe ñeenti at toog nakk si réew mi doxuma waaw ñeenti at laa toog ànd ak sama yaay ak sama papa sama yaay wax na ma ne ma gaar bu ma xam yaa tax nga xam ko yaa tax ma xam ko bii ma doxee maa ngi doxee suma ndëppi tànta astu njaay màgg sama yaay sa tëngéej wax naa la ne tëngéej noo fay falu wax naa la fii noo fiy falu wax naa la fële si barñi wax naa la fii si waa ji euh, mbaaw mais fii laa toog gan gi ñëw wax ma ne yuusu sa wëllërey maam ñëw ma yónni nommé nañ la jaraafi Cap-Vert te mag ñi biñ fi gëjee dégg jaraafi Cap-Vert sa taala jaañ lañ ko déggoon jaraaf Yoff dama ne man jaraaf ju amatul woon la damay wax ne lii ma fekk si jaraaf yi wakaam ba ñu nomee ma ko yàlla xam na ne booba la man avant ma falu mag ñi wax nañ ma di nga falu jaraaf fa lañ yemoon mooy ñan mag ñi mooy paay ginnaaw bu ñu duggee si benn opération ba génn parce que man ku dëkk si wakaam xam nga ne xale bu daan dem si mag ñi laa looloo waral yi ngay takk nii gàllaaj yeeg yooyu noonu gàllaaj yi fa muy jóge moom yenn yi daal boroom dëkk bee ma ko may yenn yi ñoom ñoo ma ko may yenn yi maa sama bopp am na si nag yoo xamante ne dëkkul Sénégal mu nga dëkk Benin mais comme nii ma la mën a wax ba may faloo ba ba jóge si maam wax naa wakaam ne fii si si Baye place publique bi ne fii ma toog wax leen su lu wér loo xamante ne boo ma ko waxatee fi mu nekkee ku nekk da koy féetale fenn te fekk wax jooju nekkul foofu. mais gàllaa ji tey ji euh, muy yow ak sa njaboot yi ku mu neex nga takk ko wala. ah déet su may njaboot yàlla mooy joxe mën na leen kaa jox comme mën na leen kaa bañ joxaat mais. li tax ma taxaw si loolu parce que dafa am mm, suma benn jarbaat bu dëkk ak man nekk ak man jamono boobu mu ngi nekk kër ga fële si Ndoyeen dafa ñëw fii bés ñu dem ba ñëw mu sol gàllaaj gi di di fo mais bi yàlla defee mu dem kër ga ci fajar sama sama jabar moo ma yee ne ma kat diwoo ngi si kër gi ma nekk ah mu ne waaw ma ne ko lu xew mu ne ma ah jaraaf kii foog nga jóg seet ko ma jóg bii ma jógee mu ñëw di def affaire kenn xamul. laajee fort <laughs> moom. daal xam naa ne boobu la ko <laughs> seet ko de bii ma jëlee affaire bi jokko <laughs> ko pour soxna si ne que defaral di ko defaral ndànk-ndànk mu ne ko cëfit ne cëfit pot bi defar ba doyal daal di teg pot bi ma ne léegi dama tëdd fa la noppalu ko. ñu toog nii moom sa maam yi rab yi ñu ngi fi toog wala parce que man boo ma nee ñu ngi fi toog man man dem naa man. du mën a a wax nu fi toog parce que tooguñu fi waaye xam naa ne man daal xam naa ne li ma xam mooy bu ñu waxee borom doom bu tànk daal. nanu moytu di tàngal xolom mu toog parce que baaxul loolu moom yàlla xam na ne gis naa si ay preuve yu dul jeedu xaaj bi ma waxee ne ma nag gars ñoo la namee nangam ak nangam ma ne lu koy wal lu koy lu koy wóoral mu tegal ma këyit si kaw table ji ne ma lem ko ma lem ko moo ne laxar ci ko ma laxar ci ko gis bon yi essence du ma la wax nag bon yu kii la wax wala bon yu la bii yàlla defee loolu ma tëj ko tijji muy moom ma teg mu ne ma loolu lan la ma ne ko essence mu ne ma tëjaat ko bi ma ko tëjaatee tijji muy carte autoroute à péage bii bii ma jëkk am boobu la ma ne ko waa léegi numéro bi nag mu ne ma numéro bi dara boo demee da ngay jàll mais bu jeexee nga dem jëndi ma ne que loolu ma gënal parce que ax baaxul waaye ñoom ba léegi bi amel naa leen montant boobu dama jot déggagul bot benn ndigal si demal jëndi gi euh, affaire boobu montant boobu sànni ko xaw ma nu nu ma koy fay bu no buñ bés bu ma buñ may joxee euh, kàddu pour ma fay ko su su karogee ma fay ko euh, <laughs> vraiment euh, ça a été un plaisir euh, bokk ak euh, moom li nga xamante ni mooy jotaay bi tey ci seen émission bi di Sénégal euh, xanaa ñu bàyyi la rek jaraaf nga daal di tàggatoo waxtaan gi nag gàtt na waaye tamit am na solo. waxtaan wi gàtt na am na solo moom nga jugé mais man d'accord naa si li nga wax waaye am na lu ma d'accord muy kenn ku nekk bu dégloo wax ji na ko teg fi mu ko war a teg rek xale ngor man damay ñaan man jaraaf yi sundoy nii ma ko ñaane woon xale wakaam ñaan ko xale yoof pour que xale ngor nañ jël bal bi teg ko si suuf parce que coow baaxul am na loo xamante léebu yi way nañ ko balaa ñun ñuy juddu dañ wax ne kenn xamul mag ñi ne lu dul jàmm jàmm ak gën mag ñi bàyyil ñu fi ne yéen coutume ànd ak ñi yor gouvernement bi ànd leen ak ñu yor diine yi bowul diine ji de diine yi na leer parce que sunu cadre bakaam yi dof yi dañuy faral di def bu ma waxee wax ñu ëlbati ko ne neen di ma mettre en mal ak réew mi waaye sant naa yàlla bu baax parce que xale yi Sénégal ñooy may xale man maa leen bëgg ñoom ñu bëgg ma Sénégal si boppam man si sama bopp su ma fi amee kër bu ñëpp di wax damay wax dëgg yi rek ba si wakaam gi jigéen ñi ak xale yi ñoo ma yëkkati woon ñoo ma yëkkati ba léegi mag ña am na ñoo si mere de am na ñoo xamante ne kër ba may nangu suma alal yi maam metti na leen waaye fi mu nekk ni ñu sa biir suuf rek ma waxoon ko fi ma waxoon ne benn bés leen si jumaa ji ne mag ñi na naa leen xam naa leen xale yi samay xarit lañ su ma dee sax nañ ma bàyyi xale yi Sénégal fu leen neex nañ ma fa yóbbu mais ñii nga xamante ne ñooy mag ñi ma ne leen gis ngeen fi ngeen di gis nii maa ngi fii waxoon naa ko fi parce que dama teewu suma kër gisoon liggéey yu yëpp ma ñëw ma leen nag ma wax leen tey lu leer gis nga léegi fi mu nekk nii lu waaye defa ci a koy fay boo ma ñëwee si jumaa ji si si armeel yi ñëw ma parce que dama ñëw pour di la raaya xa foo na xa ñaanal ñëw ma pour loolu dama ñëw xool si rek ni lay dugal si pax mi nga dem <laughs> d'accord donc gis ngeen mu nekkoon ay kàddu euh, jagaraaf euh, Youssou Ndoye tey nag moo nekkoon suñu gan ci seen émission bi di Sénégal VSD tey ci samdi bi ñu ñëwoon nag taataan si li nga xamante ni euh, moom moo di man dama loo bëggoon wax parce que coow li nii comme maa ngi ñaan xale yi lii ma ñaan pour que euh, euh, ministre de l'intérieur <coughs> wala ministre des finances président dimbali nu ngir yàlla nu bokk toog voilà donc président dégg na li nga xamante ni moom mooy euh, sa message dina leen woo te it euh, di ngeen toog waxtaan trouver consensus parce que lépp loo gis rek euh, ci biir waxtaan lañ ko war a mën a saafara donc ça a été un plaisir de vous servir mais remercier également technique bi nga xamante ni ñoo ma accompagné ci caméra bi mais mun a ci caméra bi montage bi également Dieye ak administration bu Sénégal 7 yëpp junior pour la coordination jaa ngeen jëf may remercier également samay partenaires à savoir la boutique Dieye Frères HLM 2 Solida en face école Madiaye Sall ngeen dem foofu euh, ñoom nag ñu ngi HLM 2 Solida en face école euh, Madiaye Sall donc di leen jaajëfal di leen jox di daje beneen numéro Sénégal